bu ñu gisee ñeenteel ba ñett yi bu ñu gisee diu ku gisoon di nangam nyom ñëpp kenn ku ci nekk am nga ay kuuy wau la war a dóor mm-hmm. waaw léegi nag yooyu fekkee loolu mooy acte bi loolu yëpp kon yàlla dafay suturaal doomu doomu aadama yow nag eggagul ci zina yow kin ne daa ànd ak Moussa ñoom ñaar ñu taxaw ca ba nga ni de Moustapha ak ak kinne jóge nañ ca appartement ba lu la ca ñàkk sutura la moo tax nit dafay suturaal moroom jullitam bi si des it yàlla dafa yërëm yonent bi yërëm xeetam bu njëkkoon xeet yi fu musaan def bàkkaar dañ koy bind si sa jëx wane diw mi maanaam ku duggoon ci ruq fóon koo waxta fóon soo génnee ñëpp dañuy xam ne yow fóonante nga dem ah gis nga texte boobu nag sérif dañ ko war a indi ci jamono ji waaw kon yëf yi dina garaaw de waaw benn góor ci awoon benn gi giwal gu neex ci awoon daawoo Iran daw ba mu ñëw mu ni ko yàlla yàlla yàlla ñu yàlla fayee yonent bi. Iran ne ko sallallahu alayhi wa sallam xam nga moom da daa daa dégg. mu ne ko waaw lan ñu yàlla di fayee yonent bi mu ni xam ni rek su nit maanaam la nit di def ci ruq su ko yàlla mënoon a génnee man diw mii bu yàlla génnee nangam Iran ne ko ëpp naa wax nangam jooju rek lay bañ a àgg kon yàlla dafa bari sutura bokk na ci sutura yi ala jàpp. benn anecdote bu yomb alaaji Abdu dafa dugg ci néeg bàyyi fa gan bi fa bàyyee gan génn ci néeg bi te turki dara dara la ak turki dara ca dara ja alaaji Abdu bàyyi ca somb bu toll lu mel ni un million bàyyi ko ci biir dara ji moom alaaji Abdu génn koo ci néeg bi dem ci ni beneen néegu sarala bi di yeesal njàpp diggante li muy yeesalee njàpp yàlla na fa gan bi jékki-jékki xelam dem ci poosu alaaji Abdu fekk dafa banque gan gi ñëw ci poosu alaaji Abdu yor loxoom bi sàcc xaalis bi nekk ci poosam am abdu tombeeg alaaji abdu jàpp bay ñëwaat ci biir néeg bi teg tànk nday jooram bëtam may ko loxo waa ji nekk ci dara ji mu yëkk mu war a jël xaalis alaaji abdu tànk nday joor ba dafa fekk jiwaat tànku càmboñ ba ci biit ba mu toogee li ci gën a yéeme def na fa ay waxtu yu bari fanweeri mil wala lu ko ba mu wóor ko ni sàcc bi sàcc na ba nopp ba def li muy def ba noppi alaaji Abdu dugg ci néeg bi mel ni ku yéegul ni sàcc bi sàcc na yaay toog moom moom waxtaan ak moom waaye la ca gën a neex xam nga la la ca teg daa bàyyi ba sàcc bay ñibbi ki ko sàcc alaaji Abdu wékki daraaja wékki tëkki tëkki daraaja jël tubay jàkk la ca ànd lépp ibbi waat walisam génne ca xaalis bu bokk ta xaalis ba nekkoon